وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا أحمد القديم وعلى قدوتنا العظيم أم شيخ إبراهيم فال باب المريدين بركة شيخ عبد الكريم بك فدلو نوغي سنت يالا بو باخ diko joyal mom sunu borom خيتي xéti cant yi ngir di julli ci sayyiduna muhammad Sanggup sangi waye no ngi fedeli wat sunu tey fi ci amadou bamba di balu haq bokku yeb di len bal tey ñaan yalla bo lenu jéggal ñoo ngi ñaanal cheikh mohamadul muntaha yalla sa borom yagal ko fi lol te mo and ak wër mok mbolem ku l'islam taxa waye ñoo ngi ñaanal jëwriñi serigne salim mbacke ci kaw suuf muy serigne cheikh ahmadou mbacke yàlla yàggal taxawaayam wéral ko ak bëggam yàlla defale ko ko nu kawe njortam ndax moom la borom Tuubaa bëggoon rek la bëgg la sëñ Saliou bëggoon rek la bëgg waaw ci lii sëñ bi nekkoon rek ci la sëñ Seex ne yàlla yàlla bàyyi ko sunu kanam ku nu mën a présenté fépp fu mu mën a doon la waaw fépp fu nuy présenté njiitul lislaam rek mën nañ faa présenté Serigne Cheikh Saliou waaw amul fenn fenn fenn fenn mbaa lenn lenn lenn lenn loo xam ni sëñ Cheikh dinañ ko fa présenté kenn ku bokk ci diine ji di ko xebat fii ba Makka kon yàlla na fi yàgg te waaw ab sang li war a jiitu ci ay fonction mooy sagal taalibe yi te sëñ Cheikh sagal na nu nun murit yi ndax su fekkee ni jëmm moom ngay sagoo te koy safoo di ko tiitaroo mu jaral la lu nekk moom lenn rek la la mën a xeexale mooy fexe ba kenn du la yab jaar ko ci moom te sëñ Cheikh moom kenn du yab yoonu murit di ko jaar ci moom na borom tubaab bëgg ko ko mel Serigne Cheikh Saliou mel na ko yàlla na fi yàgg te yàlla na fi yàgg te moom mbooleem njabootu Cheikh saalif ba ci seex Mourtala mi sëñ bi mujj a gis ndax sëñ Salim moom euh, yàlla defaral na ko njabootam ba kenn koo ci dajal ku mu mën a doon rek di nga yëg ci sa bopp ci sa biir ni kii ma dajal moom nitug yàlla mboolem ku mu jaboote rek yàlla defal na la loolu yàlla nañu yàgg fi sunu kanam ci barke Seexul Xaddim ñoo ngi nuyu bokki dëkk bi bu baax mboolem ku dëkk ñoom rek tàmbale ko ci kilifa yi yilif dëkk bi ak yi fi yilif diine ji muy imaam ñoo ngi nuyu ñëpp kenn ku ne ñoo ngi lay jox cër bi la yàlla jox mbooleem fondation bi ca bopp ba ba ña ca mujje bokk ñoo ngi nuyu ñëpp su nu ma noon a jaar ci turu ñëpp dañuy jaar ci turu ñëpp ndax bokk ba mu jeex bokk pas-pas moo ci gën a neex te nun noo bokk pas-pas fim tollu amna am na ci sahaba yi kok bi muy xare di xare di xare ba ak bayam da mépp am ku ko wax kaddu muniko ba mu jaaree nee ma jaar ni la gëj doon sama baay da fay jub daf koo jum nara dag bop bi am ku ko wax dara muniko ba mu jaaree nee ma jaar ni la gëj doon sama baay et pourtant moy bayam bi ko indi ci kaw souf loolu li muy firndeel mooy bokk pas-pas mooy mbokk yàlla sax loolu la wax ci safi yaakaar naa safi la suratu safi wax ne inna allaha yuhibbu allazina yuqaatiluuna fi sabilihi safan ka annahum bunyaanun marsuus suñ demee sax bu ñu demoon bay guerre sax nee na ñun nanu àndandoo nan doon benn bloc ñun ñun ñi nga xam ne ñoo bokk pas-pas guerre nag xam naa ni sax tollatun jamonoom waaye bu dekki waatoon ci lislaam na ngeen mën a waat ci sëñ Tuubaa ni murit yee nekk ci kanam ñooy gàddu drapeau bi ñoo fi des ñoo xam ni ay jullit lañ yoo xam ni yàlla jaral na leen seen bakkan moo tax ñu war a góorgóorlu lañ ñun murit yi góor góorlu bu baax arrangé wul tubaab bi arrangé wul sax sunu njiiti réew yi mbooloo moo xam ni communauté bu ànd te kenn ay wax ñëpp jëf arrangé wul kenn ku nekk ci jamono ji ñu toll di am lo bëgg a véhiculer dugal ko ci bopp nit ñi mbooloo moo xam ni kenn wax ñëpp jëf enragé wu la moo tax ñun ñu war a takkatoo nag ndax bu fekkee àdduna bépp ñun lañu ànd di xeex ñun danoo war a ànd taalibi Sëñ yépp benn lañu war doon ñépp danoo war di bàyyante xel benn problème rek lañu war a am mooy ku ku nanguwul ni yàlla def borom Tuubaa waaye ay diw ni la mel ak diw nii la mel déedéet bi mu bëggee borom tubaa bu ñu jéem xam si kam ñun waaw ku bëgg sëñ tubaa te nu xam ko mu jébbulu nangul yàlla def borom tubaa bu ñu xam kam ñun bu ko lijjanti waaw nañ ne fa bàyyi musa Ka waxoon rek ca wayam wa bu di diingat ku ngeen gis donte xaj ndegam ma ngay dox di baw ca tooli Bàmba nañ nekk fii rek boo fa nekkee di nga jubóog murit yëpp murit yëpp jubóog yow te foofu la ñu ne ah. man dara dérangé wu ma lenn rek ma dérangé mooy murit bii jaar nii bee murit bëgg a jaar ne ñuy waxante kii naan li ma nekk gën li nga nekk gën te sëñ Touba di mel ni borom Touba man loolu rek ma dérange sama àdduna. murit yi moom nañu dégloo ngir jëm si Touba ñu ànd tamit murit yi ñoo war a gën a ànd. ndax ba muy ñaan xàjjale dafa waxoon rek yàlla ni ko na leen boole ci sa sangek bopp gi. ya rabbi ji'alil muridina ma'a ñom ñep fi hisnikal hasini wa sama lajma'a mu ñu bëggee bokk nag dugg ci sangeem googu moom borom tuba bëgg faa sange woo ba noppi bëgg doon ay parte ci sunu biir day metti nanu bëggante nanu ànd budul saliw ak idrissa mbaa saliw ak sëñ abdou xaadir mbaa sidi baara sidina omar waaye mu doon saaliw borom tubaa muy xool borom tubaab ci ñii bu ko defee dana leen jàpp du xam seen sikk maa ngi leen di nuyu bu baax maa ngi leen di sant te leen di gërëm duma seen sëriñ nag seen mbokkum taalibe laa te mbokkum taalibe mënta jox moroom ko ndigal waaye bu ko leeree ni lii mbokkam mi di def bu fi amul woon moom moo koy def sañ na koo wax jërëjëf moom jere jërëjëf ji du jërëjëf fi serigne ak jere jërëjëf fi fi ngeen taxaw war naa taxaw la kon yeen man ngeen fi taxawal jere ngeen jëf loolu la leen gi du cantuk serigne ak talibé da ngeen ma remplacer sini xamante si mana waroon naa taxaw rek mo dama amel lenuk tiant ndax ma ngi japp man ci sama jenn jëm ji nga xamante si jenn jëm la rek te jëm ju gawa lotu la sax waye ma ngi japp ni place bu waroon a vidde ci yoonu murit amul ku fa taxaw maa fa war a dem su ma fa kenn remplacé damaa gëm ni kooka man la nekkal foofa moo xam kër moo Cheikh Mouhamadou Moustapha la moo xam kër sëñ Saliou la moo xam kër sëñ Mourlaal moo xam fu mu mën a doon nay yoonu murit rek fu mu defaroo daal jàpp naa ni saalu Samba fa waroon a toog di defar kon ku fa toog di defar moom nga fa toogal man loolu laa gëm ci sëriñ bi moo tax maa ngi leen di sant bu baax di leen di gërëm tey bëgg ci yéen tey ñaan yàlla nag li nga xam ni murit bu doful moo war a doon sa objectif muy ngërëmul borom Touba yàlla na ngeen ko am murit bu dofut laa wax sa objectif numéro un ngërëmu sëñ bi la war a doon yàlla na ngeen dajeeg moom ci liggéeyub sëñ Saliou bii te rafet nañ ci njort nag ndax sëñ Saliou moom ku ko sonal yàlla gërëm la ku ko sonnal am ngërëmu yàlla de ku mu gërëm it nga am ngërëm ku ko liggéeyal yàlla dina la fay sëñ Saliou day élément boo xam ni ci lislaam bi amu fi ñaar sëñ Saliou bariwul ku mel ni moom sëñ bu fekkee am na ku koy wecc daw doomi borom tubaa rek ko mën a wecc ku dul doomi borom tubaa mënoo wecc sëñ Saliou Mbacké dig ci guddi rek boobu yaakaar naa cinq heures quatre heures jooy quatre heures jege na lool yaakaar naa wala wala wala wala côté yooyu maam fu may waxtaan may tëj dama ni leen bu ñu demee yowmal xiyaam benn góor yàlla du fa indi doom ju toll ni Cheikh Saliou Mbacké barke Xaadimu Rasuul neexalewu ma ko murid yi nag waaye benn góor yàlla moo dul ñëw yowmal xiyaam indi fa joom ju mel ni Cheikh Saliou keneen ku dul borom tubaa sax soo fa andi woon doom ju toll ni Cheikh Saliou dangay ngay taxaw ni sama doom jéem a gën ndax dégg ngeen li ma bëgg a wax ku dul Cheikh Ahmadou bàmba su andi woon doom ju toll ni sëñ saaliw ci péncum yàlla day jox xar bi doom ji ni kii de moom a gën waaye ndokk bi nga xamee ni loolu du am yowmal xiyaam yowmal xiyaam bu fekkoon danoo denc liggéeyu géej gi ñëwul présenté wu seex si ñëwuñu xasida yi ñëwuñu sëñ tubaa ni tëll ci penc mi seex Saaliw ñëw mu présenté ko kii sama taalubee sëñ tubaa gañe na ñëpp barke xaadimu rasool waaw bu sëñ Saaliw rek ñëwee ci liggéeyub sëñ tubaa laa la wax waxuma la yeneen doom yi de nga xam ni kenn ku ci nekk réalisé na ci jamonoom boo tàllalee palmarèsu benn doomu borom tubaab ba mu yegg di nga xam ni kii ku dul borom tubaa moo la gën benn doomu borom Touba bu mu mën a doon tàmbaleel ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci Sëñ Mourtala boo lalee palmarèsam nii da ngay xam ni ku ko juróon ku dul borom Touba yaay wét xam ni sama doom jéem a gën. tàgge boo gis nag daa am jàppal diw tey sëñ Saaliwoo aye moo tax ma ni la doomi borom Touba rek rek rek moo mën a wecc sëñ Saaliw Mbàkke parce que sëñ Touba da koo réussir aale njaboot. yàggul waxna ko ci sen télévision bi ki ma toogaloon mu invité ma bima waxé waxee loolu dafa dafa dafa melni affaire bi da ko def ay ree dafa rétane lu yàgg door questioné wat dama ko wax ni ku dul Cheikh Ahmadou Bamba bo amé ñetti doom am nga ci ku la jikkoom neexul bari le barkeel le baax le borom tuba rek ko def ku dul mom bo amé ñetti doom am nga ci ku la neexul ku dul borom tuba <laughs> mom mo bari le barkel le baax le jël ci domam mu jommal la ba keroog ngay noppi ci moom nga dem ci keneen mu lay jommal ci mbaax ba keroog ngay noppi ci moom fii ba gannaaw suba nag doomi borom tubaa joo indi mën nañu koo waxtaane juróomi waxtu ci sa kanam lu baax rek ngay dégg lu yóbboo àjjana rek ngay mais moo ko ñaanoon yàlla bi muy réussir dama ni réussirul jëmmam échec njabootam dafa réussir jëmmam réussiraale njabootam ba egg ci njabootam gu jigéen gi sax ku dul doomi borom tubaa ju góor doomi borom tubaa ju jigéen la gën parce que noonu la ñaanee bi muy ñaan bàyyiwul gu jigéen ñi daf ni yàlla waliya baarik fil baniina wal banaat yàlla nag ma barkeelal ci góor ñi mi nga xam leen jur ak ñu jigéen ñi bi suuratin awaluha wal aariyaat wax ko feneen ni ko akrim bi xaali xaami ayaali raaci rijaali waaye xisnin nisaa yàlla may ko ko mu ni alayya wa ala awlaadi بالعلم wal amali wal isaali seen borom moo defal man Ahmadou Bamba maag samay doom dañuy am xam-xam dañuy jëfe sunu xam-xam dañuy dem àjjana bil ilmi wal amali wal isaadi nuy texe borom Touba programme bi mu andi mësee su koo gis avant moom programme sama xol musula jeng jëm ci lu yalla day wax ci may waxtan yu bari ni man na laa neex nak man na laa naqari waaye ku sa xey ci sa bop gontu ci yalla borom tuba du sama rom ndax mom mësta xey ci kudul yalla da wax ni lam yamil kalkali li ghairi ilahi seigne tuba neena sama xol bi mësta jeng jëm ci lu yalla wali rabbi qawli intaha wa sama'i suma waxe yalla suma deglo yalla lam yelit fi fuadi min irtiyabu بالذي الله قاد لي زجت معي سما دمنا مم ياغ صاح موني بغ يالا موي سما دين مان سما دين موي بغ يالا بغوغو صاح دين يا حب الله حبا داما سو القديم تي بروغرامم امول وون جور اك هور sëñ tubaa amul woon guddi ak bëccëg foo ko fekk moo ngi ci yàlla def na fi soixante-quinze ans nag waaye ñi dàq nettali ci àdduna bi mosuñ koo nettalil fekkoon nañ ko cinq minutes muy dal sëñ Touba du ngeen mës dégg ku ni la barab sàngam lan ko fekkoon muy dal soixante-quinze ans yi amul benn bis bu nit di nettali ni fekk nañ ko benn barab muy dallu fonction bi mu doon fonctionné mooy yàlla du wàcc ku koy liggéeyal doo wàcc léegi nag ku yegg foofu ak borom bi ku fa yeggul ak borom bi doo man a yem ak moom lii tax Sëñ Tuubaa wuuteeg ñépp ci lépp nga lépp luy symboliser l'islam ni ko Sëñ Tuubaa dundee keneen dundewu ko ko tàmbaleel ci daara mii jiitu daara yi nga gis kër Sëñ Tuubaa gisoo ko feneen ni ñuy mokkalee alxuraan kër sëñ tubaa gisoo ko feneen nin koy mën a bindee te duñ ko xool ba kaamil bi mat gisoo ko feneen demal ci jumaa ak jàkka pencum sëñ tubaa moom ma sa dem jumaa jafa nekk mooy gën a seer ca tund woowa bu dee raison la mooy gën a seer ca raison ba tollu jumaay jaareem gee moo gën a seer ci jurbel jumaay tubaa moo gën a seer fa mu ne jumaay masalikul jinaan moo gën a seer ci ndakaaru ci néeg yi di fanaan ndakaaru lépp luy symboliser l'islam ni ko borom tubaa defe kenn defewu ko sayiduna muhammad moom la yàlla yoon yónni ci ñun moo tax yàlla sàkkunu teraanga bu doomu aadama am yonent bi la bu nu gënee lu dul nit yonent bi la bu ñu mënee am doom sax ñun jël doomi jàmbur ren di terale suñu doom sayiduna muhammad la ni ko borom tubaa def kenn defu ko sallallahu alayhi wa sallam mais dëgg la yonent bi mooy valeur bi yonent bi mooy teraanga ji sëñ tubaa sax daf ñoo wax ni xéewal yii ngeen am ba tax ngeen di tànt di sant yàlla di bernde xanaa xamoo leen nii xéewal yooyu yëpp bi ci gën a màgg mooy bokk ngeen bokk ci ummatu sayyiduna muhammad hamiduna ni'amatuna lii la borom Tuubaa wax bokk gi nu bokk ci ummatu sayyiduna muhammad mooy xéewal gi gën a gi rëy ci xewal yi nu yàlla xéewale parce que possibilité bu nu am ci sunu digganteeg yàlla rek bokk gi ñu bokk ci ummatu sayyiduna muhammad moo ñu ko may avant rasulullah affaire bi demeewuloon nii bi mu ñëwee la demee nii mu deme parce que yàlla moo ko faral Seex Ahmadu Bamba ak farloo mayoon na ko dem ba yegg ci yàlla waaye yàlla ni ko kee laa faral raccourci bi gën a gaaw ci yow mooy jaar ci moom booy jaar ci moom déeg ci léegi wax ni lan dallani allahu ala xayril wara وخالني خير الورى لذي الورى دلني الله على محمد وخالني محمد لسمدي mais moom bi ko yàlla teg te rasul laay daa fàtte lépp ni dan na njool mag moom borom tubaa xoolaatul ku dul njool mag lu mu baax la yekk ko ko lu mu baax la wax ko ko lu mu tempsam yépp mu koy def fi moom salaatu sitta bi matahi sitta te tiihi batta maat tisaa yi at mi douze mois la sëñ tubaa nee na damay julli ci yonent bi juróom benn weer yi di ko tagg juróom benn weer yi ay tagg sax dama ko ci ameel ay bori at alayya li wajhillaahi lahu alayya li wajhillaahi day nu sanan day nu sanan boru at mustahsanin kulla aamin mépp at yow ma yuxtaaru am na feneen fu mu wax ni alaa man alayya walastu sadih lahu kulla aamin hëdaaya madi at mu nekk dama koo ameel ay bori tagg moo tax tagge na ko nu ne damay wax ni wenn wayu borom tubaa ci muxaddimatul am daax rek bu gaa yëpp taggee ba noppi jal ko ne way woowu bu ñëwee dina gën a diis mooy xadamta bi taqdimil ali ya rasulana wa xustal ula ya nasiril haq bil haq ko dàq ba tàbbal ko ci yàlla war noo xam ni kenn dootu ko dab te moom bi muy wax rasulullah ni ko yaa jiitu gaa ñi daa mel ni yool màkka dani ko gees ni ko ahmadou bamba nu ma leen jiitoo mu ni ko ci biir jiitu yàlla gi nga dugg moo tax duñ la dab xadamta bi taqdimi la ali yaa leen kawe yonent bi ni borom tubaa nu ma leen kawe mu ni ko ci kawe gi yàlla gi nga tàbbi njoolante woog ñii may wax ni wenn way woowu doy na sëkk bu fekkoon moom la ñu pëseel borom tubaa ñu teg ko nii ku wayati sa way boo ko indee woy wi gën koo diis mën naa laa jox weneen way ci geneen xasida ku way sa way boo ko indee way woowu gën koo diis mooy wahuwa ak malul waraa xalxan waaye waxul xan zahraa wal mislu xattu lam yuraa walan yuraa fii siyami katabtu anal muntaxaa xat faaxa man madaa waman yaati waman fii za zaman muhammadun nasiruhu lam yaati fii ma mada wa abadan laa yaati sallallahu moo jox cër rasulullahi nee na dama koo liggéeyal ba yàlla def ma ni maay liggéey katub xadarab sayiduna muhammad xadara ba jaalani laahu qadimal xadrati waaye wa jaada jallali bi hifsi hurmati bi ma yàlla defee may liggéeyal sayiduna muhammad ba doon liggéey katub xadarabaat mosumaa fecc njool màkka war sëñ tubaa nee na wajaada jàllali bi hifzi hormati musuma fecc lay war ma wax na dëgg bari waa nag kuy jéem a tagg rasulullaay bu doxee tuuti wax loo xam ne bu ko waxoon ci sa waajur nga mer mu wax ko ci ki tax yàlla sàkk jaam ñi duy teggin sëñ tubaa te xoolal benn bindkat lañ fi peeseelul 10 kilos <laughs> fukki kilos yoo bind ñu teg ko nii amul benn bindkat bu ñu ko fi peeseel sëñ tubaa lañ peeseel 7 tonnes 500 ba noppi gisuñ ci xas watu uhud parce que uhud dañ cee gañe woon rasulullaay kooko kookoo jox rasulullaay ay teggin suñ moo jox rasulullaay ay teggin moo tax lu mu am ci yonent bi war naa mën a nekk moo tax muy way ci xasitul laxat jaakum ba mu yàgg mu feree ne ni maa ngi giñ ci yàlla ni yonent bi maay xaritam maay soppeem lu ma bañ rek la bañ lu ma bëggati mu bëgg ko aqsamtu billaahi inni li nabi abadan xillun wa hibbun wa abaahu ya abaahu nabiyuna fii kulli shay'in wa ma yabahu abahu abaaxu di wax ni xol sama khasaayid nga xamni tawhid la wetal yalla la di seede deug di tere puukare taraa xasaida tawxiidi li malikina sawahid al haqq man hatan liman bahu waye lam ca tega a neex mooy wallaahi sëñ tubaay wat inni yaqillu lil ilahi ma ngi wat ni man ahmadou bamba may xaritu sen borom xarit nak day seigne ci alali xarit ba dara murid bokale wuñ yalla de seen sëriñey xaritu yàlla foofu problème bi te xarit di sañ ci alali xarit bi dara ñun saa bu ñu waxee gars yi dinañuy bokkaale waaye bokkaale wuñu xam nga lu tax bokkaale wuñu mooy ñun néegu yàlla bu nu defar ba noppi ñun murit yi bu ñu defaree yàlla ab néeg boo ñëwee ci néeg bi boo fa jógee néeg boo duggati bu murit moom moo xam sax xalif général day murit ko moom di nga xam ni néegu yàlla bi niroowul ak néeg bi wala valeur biñ defal yàlla defaluñ ko kenn ñooñu bokalé wuñ yàlla seigne touba talibem du bokalé yàlla seigne touba nan la talibem di bokalé yàlla ki wax lahul wujudu allazi qad sanahu qidamun maa albaqaa'i wa ghayru allahi lillahi wax ni malikun lahu sharqun wa gharbun wahdahu wa kazalahu barrun wa bahrun yukmilu allahu jalla ahadun wa huwa samat laysa lahu min walidin wala walad ولم يكن جل له كفعا أحد وسرمدا بالملك والحمد فرد أسعد أنه الإله الواحد وأن أحمد رسول العابد الله رب جليل مالك أحد بر لطيف كريم لم يزل سمدا kooku taalibeem du bokkaale yàlla sëñ tubaa ba ma wax ci wetam yàlla rek kay buur dala naa ni la tasxir gee ko yàq del wax yàlla daa lay buur ne yàlla rek day mel ni am keneen ku war a ñëw kooku waye nak mom xaritu yalla la xarit nak, day sanc ca alali xarit ba dara li rek ay problème bi de motax bu mouride yi rek ñu ni ñagay bokalé señ mag bi day xaritu yalla yalla amul nday amul bay. de nga wax nako legi léegi allahu jalla ahadun wa huwa samat laysa lahu min walidin amul wayjur wala walat amul dom, amul mag amul rak. waaye am na xarit nag li nit di am yàlla amu ci dara waaye yàlla nag nag moo ni moo ni wa taxazallahu ibrahima xalila yàlla ko wax de yàlla amul ndey amul baay amul mag amul rakk amul doom waaye am na xarit moo ni ibrahima sama xarit la bi mu nangoo am xarit moom yàlla la sëñ tubaa farlu ba yàlla geesu ko ni ko ahmadou bamba saab xarit nga lii rek la de li yàlla nangoo am ci lu doomu aadama di am mooy xarit sëñ tubaa fexe na ba doon ko ci yàlla waaw boo doonee xaritu ki moom yëf yi nag yëf yi da nga ciy daal di xeej yi ah bis bu nekk nit décrété ci këram sax dara duñ wooyi magam duñ wooyi rakam xaritam la ñuy woo wooyi rek mu ñëw effacé affaire bi saa boo dogalee sa kër lu neexul waa kër ga sa rek la ñuy wooyi buy ñëw muy dañ léeg-léeg nit génne doomam ni ko dootoo fi duggati duñ wooyi rakki papaam xaritu papaam ba rek la ñuy wooyi mooy jàpp ci loxoom xale bi ñëw ni ko yow loo mën a lii affaire bi jeex xarit dalay fekk nga décider lii ba pare mu dindi def leneen mën naa laa wax nag junni yu yàlla may borom Touba ci yooyu fi mu toll alxuraan nu waxoon kenn du xam ci seen suuf ngay faatoo sëñ tubaa da ko daa wax nit da ko daa sax laaj nit foo ko bëggee ma defal la waaw sëñ Masamba Diop Sam mii dëkkoon fii ci Daaru Sam sëñ tubaa da ko wax Masamba Diop anam foo ko bëgg defee te wa maa tadri nafsun bi ay ardin tamuutu la alxuraan wax mais sëñ Touba moo laaj sëñ Masamba Diop fan la bëgg faatoo te yàlla nee na kenn du xam fooy faatoo mais sëñ Touba xaritu yàlla la moo tax mu sañ a dugg ci biir dogal yooyu def ci lim ciy def Masamba Diop mu ni Mbàkke mu ni ko ana foo ko bëgg a defee mu ni ko fii leen ma moomee waaye Kajoor lañ ma miine mu ni ko waajal dem Daaru Saam mu jóg départ rek mu ni maam Thierno Ibrahima Fati Thierno na topp ko bu yeggee dana wàcc liggéey nga taxaw ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ni bu ko temps yi laajoon dinañ ci sori trop mais daal cib tënk mooy Cheikh Ahmadou Bamba amul moroom ci tënk Cheikh Ahmadou Bamba kenn la boo nee kenn la nag boroom sikkim yu gudd yi naa ni yàlla rekk ay kenn futbal bi sax am ku yor ballon d'or ah dañoo gis ñaari ballon ci coupe du monde bi jàll fan yi gis ngeen ñaari ballon ñu joxe ko fa kenn rek lan ko fa jox ah ni ko yaa dàq football ci àdduna bi kon kenn la ci biir footballkat yi am déet dëgg la am déet pomme yi caaxaan yi tudd làmb ñaari roi des arènes da ciy am ci benn jamono ah benn rek ay am kon kenn la ci seen biir te yooyu ay caaxaan kese la lu ne yàlla def na ca kenn l'islam bi sëñ Tuubaa kenn la ci nañ ko d'accord yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cent vingt quatre mille prophètes la yàlla am trois cent treize ci gën vingt cinq ci gën ñoom la alxuraan indi seen i tur ña nga ca bopp xasidatu sindii di boo tàmbalee ba ca wa yusufin wa bi ishaqin wa gayrihimu am nga ñaar fukk ak juróom waaye juróom a ci gën ñooy ulul asmi def na ci ñoom tawasul ci tuxfatul mutadarriin waaye boo gisee ni sëñ Tuubaa tudde seen tur yi xam ne am na kenn ku bokkul ak ñoom ñaar ñu nekk xab way la leen boole bi mu yegsee ci waa ji da koo tudd julli ci moom door a wax li mu bëgg a wax kon kooku bokkul ak ñoom rabbi bi nuuhin lu mu ci teg wa bi ibrahima dem ni wa bi jaaye ñaar yëpp xab way la mu ni wa bi muhammadin rasulillahi taxaw ni alayhi xayru salawaatullahi door a jàll njool màkka kenn la de yonent bi kenn la di ci biir yonent yi est-ce que kennuk yonent bi daa yàq ci kennuk yàlla gi dara ah kon kay kennuk borom tubaa gi mën da yàq ci kennuk yàlla gi dara nan dimbali rek xaw ma dégg nañ li bëgg a waxam déet kennuk yonent bi daa yàq ci kennuk yàlla gi dara ah kon kay tubaa gi du yàq ci kennuk yàlla gi dara bàl leen nu rek te bàyyi ñu ñu gëm li ñu gëm nag ñun li ñu gëm naqariwut de moo ngi ñuy jariñ àdduna te muñ demoon yemal xiyaam mu ne naxee mbaay sëñ Basiru Mbàkke way jur sëñ Muntaxa nee na li dal miinu borom tubaa jox ci kaw suuf suñ demoon ba yegg yowmal xiyaam nee na sëñ tubaa ni dama leen doon nax na ndax ñun xel dal gi doon doxee ci kaw suuf si murid yi dal gi ci kaw suuf si sëñ Basirum sëñ nee na bu ñu demoon ba fële mu ne foofa la yëf yi yem nee na baax na ndax amuñ stress ci kaw suuf ci jàmm la nekk di murid yi ci jàmm lañ nekk bi ñu amee sëñ Tuubaa la seen xel dal ci lépp dal àdduna ñu ñu gëm ne alaaxira danañ am dara te alaaxira di ngeen am dara de mënoo leen ñàkk am dara tey jii ñaata nit ngeen reggal ah yeneen bi nee na ku tabax lu tool nii lu tool ni saag bii tudde ko néegu yàlla yàlla dina la tabaxal njënd ci àjjana moo waxaat ni ku jël tibum ñam waxul mu reg de dani ku jël tibum ñam jox julit bu xif mel nga ni ku tabaxal yalla junniy juma wa legi bu fekke ben juma ngay tabax am njënd bo bo defé lo xamni dañ la ni mel nga ni ku tabaxal yalla junniy juma legi yow loy am murid ya jena jem jëm señ bi ah, li ngeen def ni li ngeen def ni ay copara ko def di te yeufar bu tabe dem sawara bu ke yeufar bu tabe dem sawara nak ngay julit gem yalla topp Sayyiduna Muhammad nangul yàlla defal borom tubaa te jox ko sa bopp ba noppi di joxe sa alal foo jëm bu dee yëfar bu tabe du dem sawara weddi yàlla a gën a bon ci bon bon yi boo ko defee ba pare tabe di joxe nee nañ doo dem sawara Sëñ Tuubaa wax nañu ko ci Masaalikul Jinaan bi muy lim ñi dul dem àjjana duñ dem sawara boole na ci yéefar bu tabe mais bu fekkee yéefar da ngaa weddi yàlla ba noppi tabe doo dem sawara léegi boo gëmee yàlla gëm rasul lay gëm borom Tuubaa tabe nag te murid yi far force suñu tabe de mas naa ko wax ci benn weeru safar ma ni leen ay at ci ginnaaw bu weeru màggal teroo gars yi dañuy wax paas ak paase léegi mu yi solatuñ luñ paase dañuy xotti dem Touba lu bees bu weeru safar masaana teru paas ak paase la ñuy wax léegi bu weeru safar teroo dañuy wut xar ginaar bay giléem rendi ko berndee ko nit ñi ci ay bisu safar ba noppi door a dem te loolu yëpp ay koppar a koy def xam nga lu leen ko man loo olofa lépp ne alal ci xol la sax waye fi alal wara tok ci mouride yi borom tubaa fa tok ba nopi motax ñu mën li nuy mën li kessa la alal ci xol la sax d'accord mais ñun bala alal a dugg sëñ tubaa dugg na ba nopi motax lu am man nañ ko ko delloo li rek moy programme Amadou Bamba programme bobu nak ci la jaar ba réaliser ñu lim nu réaliser andil ñu fi ñim ñu fi andil ñooñu mu fi andi nag tàmbalee ko ci sëñ Modou Moustapha ba si Cheikh Mouhamadou Mourtada moom borom Touba ci programme boppam moo programmé waat seen biir Cheikh Salihu Mbacké def ko wërsëgu ndaw yi mu jug jamono. déglu li ma la wax ndaw yi mu jug jamono sëñ Saliou wooy seen wërsëg ci njabootu borom Touba loolu programme borom Touba la fi mu toll njaareem bi fi sëñ Touba xasee yegg si 15 ans yi mu fi def. doo dégg ñu ni la moo kenn ñoo dëkkoon jenn doomam ju gane woon jamono mu nekk ak yow amul dañ lay indi bis sàngam rek te mooy joxe ndigal mu def waxloo def digal la tere la dalal la joxe la sëñ Saaliw rek rek rek rek rek moo tax sëñ Touba di bernde une semaine avant presque mu gane jamono ñu génne soxna Faati Jaxate ca waa barsàq ber ko goreel ko sëñ Tuubaa récupéré Seex Saaliw sunuy nopp ñun ñu koy wax ak ñu koy dégg istuwaar la ñuy nettali waaye ki ñuy waxtaanee du moroomu sunu lenn barke Xaadimu Rasuul sëñ Saaliw mën a tooge ci kanamu borom Tuubaa ci biir néegam yi man fee doxe man fee waxe loolu benn Seex Saaliw rek la ko yàlla jagleel ci jamonoy njaareem jamonoy njaareem amul kenn kenn ku toll ci âge yooyu di nekk ak borom tubaa ku dul sëñ Saaliw sëñ Saaliw rek moo mës di nekk ak borom tubaa ci bépp jamono sëñ tubaay yi loppanti di defaraat yaral ko boppam miinal ko boppam wax nañ ni bu ma saan a tëju xalwatu sax bis bu sëñ Saaliw déggee kàcc ci bunt yi aw xel lay ñëwee ndax namm ko muy namm borom tubaa ndax miin nga ko sëñ Touba miinaloon boppam foofa la waxe won ci mom wax ju je ndax baba at yi wul suñuy nopp ab sëppenti rek lañ ko mënon tuddé suñuy nopp ñun ñukoy wax nak waxu ngir ñak teggin de waaw ab naar di xol bam yag mu yàgg naar baa ngi waxanteeg borom Touba seigne Saliou traversé ab sëppent naar bi di xol di xol di xol di xol ba mu jall ci buntu sarale kam doon xol di lu tuti ci zahir mu del ci seigne Touba ni ko waaw kii fi jaar léegi mooy xale bi fi jaar ngone sii fi jaar léegi te yàlla te yaramam wi fu ne yàlla takk cib garaat ku mu doon mu ne ko saalihu la tudd sama dooma saalihu la tudd sama dooma gis nga saalihu la tudd sama dooma moo tax Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim bi sëñ Saalihu amee 21 ans mu fekk ko mbuur ni ko xoolal ma sama kër gi mu xool ko ni ko sont na mu ni ko dama koy jaay sëñ Saalihu ne tekk mu ne ko yow rek la yàlla jox njëg nag ndax ñoo bokk bàyyi laa la koy jaay yow rek la borom Tuubaa ni woon nga lii moo may sëñ Saliou borom ko tak mbuur jigéey dégg yëpp li ko may mbuur mooy daa daa wax seex Cheikh Moustapha ñoo bokk bàyyi mu fayee ko kër ci mbuur cosees waaw ba Baye Moussa kay way ba tolloog moom ca doom ya dafa wax ni Cheikh saali wooy donoy xalifay Bamba Baye Moussa nag wala wuy way la woon ndax bi muy wax baat yi ma lay wax ñi mag sëñ Saliou ci doomi borom Tuubaa yi ñoo ngi fi waaye moom it ñi mu mag ñoo ngi fi sëñ Moussa ni ñoom ñëpp moo leen di doon Cheikh Saliou wooy donoy xalifay Bamba te ma nga fa mbuur yor mbóot ya attan yan ba ma wax li tax ba mbuur a raw ci réew mi donoy xalifa baa fa xelli meew mi gisoo fu dul Touba ci Sénégal ci Afrique sax mbuur la gën a gaaw màgg sëñ Saliou tax Baye Moussa Ka ko wax de du waxi Saliou Samb ma wax li tax ba mbuur a raw ci réew mi donoy xalifa baa fa xelli meew mi waaw fu dul Touba mbuur la gën a gaaw màgg ci Afrique maam Cheikh Ibra Fall mi nga xam ne fu ker sa nekk ci guddi ci yoonu murit moo ne ker gaa ngi te bu bët setee ñu xam ne ker gaa ngi maam Cheikh Ibra Fall bi mu gisee sëñ Saliou nu wax ko doomi sëñ Bamba la da koo yëkkati teg ci dënn bi waaw wax ngeen dëgg de doomi sëñ Bamba la gis na gann di wàcce ko tegaat ci dënn bi wàcce tegaat ci dënn bi wàcce daal di wax baat bu rëy mooy gis gi ma ko gis moom Saliou mii te booba at yi bëriwul de mu ni wuutewul ak gis gi ma gisoon sëñ Bamba ba ma koy seet ba fekk ko Mbàkke Kajoor dal di wax ci lamiñu arab mom Cheikh ibrahim Fall ni deñu seigne salew bi moy bamelu secret yàlla yi sadruhu khabrul asrar Cheikh ibrahim Fall ko wax de te maam Cheikh mom lo dof-dof yow lo dof-dof xamni yon wi bu fekkon machine la mot de passe bay Cheikh Ibra barki borom Touba xale yi lolou non rek la len meuna misale Cheikh Ibra ni ma leen mën a misaale Cheikh Rafal mooy yoonu sëñ Bamba wii nga xam ne yoonu murit bu fekkee machine la machine ordinateur la lé Cheikh Ibra Fall lay bi nga ordinateur bi lu mu bees bees lu mu rafet rafet rafet lu mu sophistique sophistique lu technologie bi garaaw garaaw garaaw boo xamul mot de passe mook brique bi ñoo yem ci yow est-ce que dégg nga ma moo tax koo mën a doon te gëmoo Cheikh Rafal yoon wii doo ci saf xorom maa la ko wax sëñ Saliou nag moom moo moo tax doonam borom tubaak yi lu leer la sëñ Saliou jotaayam Cheikh Ibra Fall daaw ko ci dégg wax nañ ni bi nga xamee ni jege na jege na digg bi jege na ba muy waaj te woolu jëwriñ yi mu tegoon ci daara yi ñu ñëw daf cee am koo xam ni Cheikh Ibra Amar la tudd ci jëwriñ yi yoroon daaraam yi ñu ñëw di ko nuyoo nuyoole ni ko ba yegsi ci jëmm jooju daan ni ko kii Cheikh Ibra Amar la waaye leneen turu Cheikh Ibrahima moo tax sëñ Saliou daa daanu ba jotaay bi xaw a yàqu waaw daawul dégg turu sëñ maam Cheikh Rafal sëñ Saliou daawul dégg turu sëñ Mandoumbe jotaayam boo mas a toog te bëgg mu yàqoot ne ko Cheikh Amadou Bamba waaw sëñ Saliou boo bëggee jotaay bi jeex tuddal borom tubaa wallaay jotaay bi du yegg foofu lay yem musuwaar lay génn taf ci kanam gi mu jeex waaw ku mës tudd borom tubaa ci kanam sëñ Saliou jotaay ba du yegg waaw teg borom Touba moom feneen la few fa mu teg borom Touba moo tax sëñ Mandoumbe Mbàkke mii am pas-pas bii mu am ak Cheikh Ibra Fall mii am pas-pas bii mu am ci borom Touba sëñ Saliou daawul dégg seen i tur jotaay bu mu mës a toog boo tuddee sëñ Mandoumbe jotaay bi jeex bu boo tuddee Cheikh Ibra Fall jotaay bi jeex Cheikh Saliou fa mu teg borom tubaa nag moo ko waral gis nga fa mu tegoon sëñ Modou Moustapha ñoom sëñ Modou Moustapha moo leen defal lépp li tàmbalee ci sëñ Abdoulaat ba ci suuf ba ci sëñ Mourtala Cheikh Moustapha leen defal lépp bi ñu wàccee sax nga xam ne suñ mag bi dafa wàcc te ñu noppi alxuraan tindoo di la leen yóbbu ca dëkku boppam ba nga xam ne moom la moom la ko suñ tubaa joxoon digal mu sanc ko tindoo di fala sëñ Saliou ñoom ñi nekkoon mu leen fay jàngalul moo leen indiwaatoon ci sëñ Habibu Mbàkke imaam ci tubaa bi mu leen ne tubaa sëñ Habibu Mbàkke imaam la leen jox sëñ Habibu Mbàkke rakki borom tubaa la mu nekkoon imaam jamono yi sëñ Saliou la door a wàcc liggéey sax moom sëñ Habibu Mbàkke jàngal na sëñ Saliou mais ci jamono bi sëñ Saliou di général des mourides la door a wàcc liggéey sëñ Habibu doomi sëñ Mbàkke la sëñ Mbàkke Ibra mook sëñ Mbàkke Mor Anta noo bokk lépp moo moo doonoon sëriñ Mbàkke Kajoor waaw Mbàkke Kajoor bi fa bi ko sëñ Mbàkke si Mor sancee ba noppi wàcc liggéey xam fa la yoonu muri sosoo waaye sëñ Mbàkke Ibra la fa bàyyi Cheikh Ibrahima Mbàkke ñu naa ko sëñ Mbàkke Ibra mooy sëriñ Mbàkke Kajoor moom la fa bàyyi sëñ Mbàkke Kajoor moomu moo jur sëñ Habibu Mbàkke imam yi ma lay wax ak ñuy wax sëñ Amar Fall Mbacke xam naa ni ñi xam côté Louga dinañ xam sëñ Amar Fallum sëñ Baara sëñ Amar Fallum sëñ Baara sañ sëñ Baara ko tudde sëñ Amar Fall doomi sëñ Mbacke Kajoor ak sëñ Omar Mbacke Gelongal sëñ Omar mook sëñ Fallu ak sëñ Modou Moustapha la sëñ Touba dalalandoo alxuraan ñoom ñett waaye seen bàyyi la nag ndax seen rekki baay la seen morom la waaye seen rekki baay la ñu ko mësaana yónni ci sëñ Touba sax sëñ Touba da leen bu leen ko yónneeti seen baay la sëñ Modou Moustapha sëñ Fallou ak sëñ Omar ñoom la sëñ Tuubaa dalalandoo noonu la demee ci sëñ Mbàkke Ibrahima yi ma la doon expliqué waaye mu teg sëñ Modou Moustapha fof yaakaar naa ni bu weesoo ki mu tuddee Seex Ahmadou Bamba sëñ Modou Moustapha la njëkk a tudde doom ci góor sëñ Saliou bu weesoo ki ko fi nekkal tudd Seex Ahmadou ki ci topp Moustapha la tudd loolu rek dalay lay wan fi mu teg sëñ Modou Moustapha sëñ Saliou sëñ Modou Moustapha la njëkke tudde doom gannaaw borom Touba pour nga xam fi mu tegoon sëñ Modou Moustapha lépp nag sëñ Modou Moustapha leen ko defal yéeg sax waykat yi daa way daan Moustapha jëkk a jox ay rakam naaru góor teg baraag ya jëlal leen i soxna ñuy buur moo leen sampali kër kërug mbuur gi moo ko jox lu ne seq na ko ñoom ndax sëñ Modou Moustapha daa gëmoon borom Touba ba gëmul ni moom ci njaboot gi la bokk soxna may mu sëñ tubaa nee na bu ñu masaana añ ba noppi xéewlu day tàllal baxa bi rek daal ni mbubbum seen taalibe bàyyi la fomp leen fii soxna may nee na dem naa bay mag door a xam ni ndekete doomi sëñ bi la waaye ab taalibe sëñ bi bu ñuy toppatoo laa ko tegoon Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim mu àndeek moom noonu bi sëñ Fallou Mbacké di ñëw en 45 nag fekk sëñ Saliou sampi daara di bay di am bokk ci ñi ëpp wërsëgu mbay ci réew mi parce que am na secret bu am fi mu toll coow li muy bëri yëpp mooy yoonu murit ci histoire Sénégal à tous les tout tout les temps jamono yëpp ki dàq bay ci Sénégal ci yoonu murit lay bokk. bi fi tubaab bi nekkee borom darul moxti lañ seede ni moo dàq bay bi fi tubaab bi nekkee sëñ Mor Moustapha lañ seede ni moo dàq bay ginnaaw sëñ Mor Moustapha ak borom darul moxti sëñ Basiru Mbàkke fi dàq bay. sëñ Mandoumbe Mbàkke moo fi dàq bay bi ñu ba tubaab bi jóge fi sëñ Saliou Mbàkke dàq bay ci senegal tey jii ku dàq bay sëñ Cheikh Saliou da ngeen koo gis côté boo jàll borom tubaa amul moroom dafay feeñ ba ci côté économie borom tubaa amul moroom da ciy feeñ sëñ Saliou jamonoy sëñ falu dafa fekk parce que sëñ dis 19 ans la am rek samp daara commencé di tërbiye di jàngale di bay di indil ki fi nekkal boroom Touba yàlla dimbali ko ñu nag mbayam wuyu ay millions la daan jox Sëñ lu Mbàkke te jamono bi muy jox Sëñ Fallu Mbàkke ay million da ngay taxaw ci mbedd mi sàkketam yi bënn ba nga gis jën yi tagaram gi tege muy joxe ay millions te booba junni mën na lu nekk junni mën naa réfectionné kër gi parce que dépasse kër gu mag cent franc la woon ki daa joxe cent franc dépasse moo yor kër gu rëy rëy junni mën naa réfectionné kër sëñ Saliou sëñ Saliou di jox sëñ fallu Mbacké ay millions te réfectionné wul këram moom mësta lekk ci mbayam ab doom mësta lekk mbayam sëñ Saliou mës naa tawat jamonoy deq gerte mës naa tawat jamonoy deq gerte jël otoom jox ko ay nit ñi leen dem leen joxal ma ko sëñ Fallou addiya te ni ko sama yaram mi daa naqari mu ñaanal ma tëdd ca tool ya sëñ fallu biñ ko ko waxee daa toog ba mu yàgg mu joxewaat oto bi ni jëlal leen ma ko ci ñu jëli ko ci mu ñëw teg ko ci lalu boppam bi di ko faj daa di woote ñu ñëw mu ni dem leen déqali ma gerteeg saalihu gi ndax bu ko déqi woon it fii la ko jëme si dem leen déqil ma ko te indi ma ko kii du lekk mbayam fii la nekkoon ci doom borom tubaay bis bi nga xamante ni jumaa ji pare na ba sëñ lu noppi ci jumaa ji daal di teg xam nga jumaa ji est-ce xam nga ni budget bokkul ak budget wu soorooru Lamp Fall bi jumaa ji daa pare sëñ Fallu door a teg xeeru sooroor Lamp Fall bis bi muy teg xeeru sooroor bi daa teg xeer bi ba pare mu ne ndax xam ngeen lu tax ma nekk saalihu ba mu ñëw ma door a teg xeer bi ñu ko ah Mbàkke xaw na noo jaaxal de mu ni saalihu mii lim ma jox ci jumaa ji bu ma ko delloo kàmb gu rëy feeñ loolu mas na koo wax beneen yoon ndax sëñ Saliou daay ñëw ci moom fekk sëñ Fallou tëju teggin yi tax biñ ko waxee ni daa tëju sëñ Saliou daa mel ni kuy daw ndax bañ sëñ Fallou yëg ni ñëw na fi muy ubbi ndax xamul xam sëñ Saliou bari teggin nag maanaam sëñ Fallou ngi dallu sëñ Saliou moom dallu sëñ Fallou boobu ak xam ni sëñ Fallou fonke doomi borom tubaa moo tax buggul sëñ Fallou yëg ni biñ ko xësee wax ni fatu na rek buggul sëñ Fallou yëg ni ñëwoon na ci kër gi nga xam ne muy génn daa mel ni kuy daw waaye bi sëñ Fallu ubbee ñu wax ko ni ah suñ Saalihu di ñëwoon na fi daal daal di tàng jër daan ni fu mu ñëwatee ci sama kër nangeen ngeen ma ubbi kooku xanaa xamoo leen li mu def ci jumaay sëñ Bamba ji est-ce que fol nga ni sëñ jumaa ji rek a taxoon mu faral Senghor mu fal Senghor sëñ Fallu ku man ci jumaa ji rek yaay xaritam te suñ Saalihu manoon ci jumaa ji ku man ci jumaa ji yaay xaritu sëñ Fallu Mbàkke gis nga bi gaa yi campagne ku nekk di ñëw ci kilifa diine di wax sa programme ci Sénégal mom daf ni kou fi yegg ci tuddu tudd ji ma jox la rew mi Senghor mo yegg ci tuddu jumaa ji rek bo ma falé de dina la jappalé ci sen jumaa ji té chrétien la Seigne Fallou jox ko rew mi waaw parce que CFA la Seigne Fallou daan jox ben politicien bu mësa a ñëw ci mom bi joxé Senghor kum jox 150000 da ngay jël dem boba 150000 da bax nak 150000 jamono jojja alal ju bari la ku ñëw. def sa déclaration ba pare wax sa programme sëñ Fallou jox lañ cent cinquante mille ñaanal la nga dem Senghor sëñ Fallou jox ko cent cinquante mille yi mu waat ko ni ko maa ko barkeeloo ci jumaa ji li ma bëgg boo ma ko ñaanalee ba mu am dinaa leen jàppale ci seen jumaa ji sëñ Fallou jox ko réew mi waaw léegi nag déet Senghor xanaa xamoo bis bi muy feeñ wax nañ ni maam Serap Fall daa toog ba xaaju guddi mu ne ci mag ñi kenn diw mu ni Fall. mu ni fii ci sow bi wala yu mag feeñ na fi tey gane na fi jamono tey waaye du doon jullit nag 1906 fii ci sow bi wala yu mag gane na fi jamono waaye du doon jullit nit Senghor boo déggee ni mu doxale sax nga xam ne am na leneen lu mu àndal lu bokkut ak ay yooyu kese sëñ Fallu fonk doomi borom tubaay yi mel ci sëñ Saliou nag ñàkk sago ci sëñ Saliou ndax bëgg gi sëñ Saliou bëgg liggéeyu borom Tuubaa beeg lim ko jaral xoola koo xam ne yàlla dogal na boo bayoon benn année jaay ko rek ñu boole la ci risaar yi nga bay ngay bay te un kilo de gerte mosu koo utiliser moom sëñ Saliou ba bi muy doon xalif général des Mourides bu bayee li addiyee ji mu war a joxe kër borom Tuubaa sëñ Mourtala la koy jox li ci des mu def ko ci liggéeyu borom Tuubaa bi sëñ la daan xaaj jox ko lenn li li ci des mu def ko ci liggéey borom Tuubaa bi waaye mësta lekk mbayam ba ne mu fi jógee te lim doon bay kenn récolté wu ko ci senegal fi la nekk ak Cheikh Mamadou Fadal ba bis am am sëñ Fallou daa amoon ay tool ci Ndakaaru fi ñuy wax Mbambilor sëñ Fallou dafa amoon ay tool àllarba lan ko daa bay am na ba joo xam ne sañ Saliou daa def ci poso mbaar bi mu daa yor ñaari tonni ceeb toog ci kanam ñëw nuyoog sëñ Fallou jàmm sante jébbal ko ñaari tonni ceeb yi ci liggéey bi ba noppi tàllal ko loxoom mu ñaanal ko oto ba départ suñ fa luy xool woto ba mu yàgg nii ndax xam ngeen kee di dem ñu ko ah bëgg nañ koo xam de Mbàkke mu ne ana lu ngeen xam ci moom ñu ne ko ngeen bokk seen woy jur bu baax wa muy sa rakk di sa taalu bi mu ne waxuma loolu de ñu ne ko ak ah, li ci des ne Mbàkke yaa koy xam suñ fa lu ni tekk ba yàgg daan xam ngeen um koofa am koof ñu ne ko waaw Mbàkke mu ne koof maa nga nee di dem daal di joxar bi oto bi suñ saalo bi ni kay di dem bu ñëwee dana ub làmb ji te kenn dootu ko daan bis ñëwee dana ub làmb kenn dootu ko daan waaye ub làmb ji zahir bi rek sëñ Saliou daa ub làmb ji liggéeyu tubaam bu mujj bu rëy boobu mu liggéey bi mu koy tàmbali 11 milliards 400 millions la génne dangeen ngeen gis kenn ko jox 5 milliards kon ub na làmb ji zahir bi rek dafa ub làmb ji mooy daa génne 11 milliards 400 millions teg ci taabal ji door a laaj lim laaj kenn jox ko xaajam te ub na làmb ji ci wet yépp ndax téere bii di alxuraan moom li ci sëñ Saliou def bi alquran wacce ci sayyiduna muhammad ba tay ji ñu tok ken defu ko ci koko ub lamb ji alquran wax nañ ni ben harfa ci gën rasulullah wa al wahid min alqurani afdal min nabiyina al Adnani. suñ la nee nangam mo gën nangam nak bul xol liñ wax mo gën liñu gën ngay xol nim toll pour nga xam li nim toll yonent bi ak ki mu doon li la wax fi yep ci yonent bi legi, ñun la alquran ko gën kon alquran lan la ah alquran momu manila la ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la wàccoon bi mu wàccee ci moom ba fii nu toog li ci sëñ saaliw def góor mosu ko jee def nee ci def douze mille personnes yu jàngee ci sa daara ba bind alxuraan te xooluñu ko bis bu ngeen ma wanee ku am mille rek nañ ko jox raaya wi douze mille fukki junneeg ñaar ñoo xam ne ci sa daara la nu jànge ba bind fi kaamil te xooluñu ko te bi ñuy jàng yaa leen di solal mbubb di leen solali dàll di leen jox ñuy lekk di leen jox fu nu tëdd bu ñu demee yowmal xiyaam ba sama borom ni sama alxuraan ji ana ku ëpp lum ci mokkallu kenn ay jóg taxaw doomi soxna Fat Jaxate lay doon moom rekk ay aj loxoom moo tax sëñ Tubaa am na ndam ci sëñ Saaliw barke borom Tubaa waaw bu ñu demee ba yowmal xiyaam yàlla ni sama alxuraan ji ana ku ci ëpp ci ci loo ay nit ba nu bind ko te xoolunu ko ñëpp pencum yàlla danaan daje cinq continent yëpp danañ fa daje waaye doomi borom tubaay jóg saalihu lay tudd douze mille personnes yu mokkal ci sa daara dooy caaxaan de magasin yi mu doon def kaamil yi ñu bind ci daaraam daa demoon ba xajatul ci magasin yi amatul fu mu def parce que dongo bu bind kaamil moom la koy jébbal si fi mu daan denc kaamil yi dongo yi boppam yi daa demoon ba amatul fu mu fa xaj kaamil xajatul léegi kooku kooku xanaa dañoo fàtte ni bi ñuy jël way juróom di ko yóbbu moom fi mu ganee jamono sëñ Tuubaa dañu trompé ngeen yéen nasaraan bi yéen a yóbbu njaareem te njaareem danaa fa amee kok li ngeen di bañ yépp moo koy def raamu masiri ilaa njurbel la daal la sa sin law ayenu sirama fii sayri maram ay bu ngeen gisoon secret li nekk ci sama dem njaareem secret bi nekk ci demuk njaareem borom Tuubaa nag mooy mu amee fa ku toll ni sëñ Saaliw mu def ci lislaam bi li mu fi def yow da nga doon yóbbu kii pour fay lislaam mu amee fa ku mokkal loo douze mille personnes alxuraan ah yow da ngaa taal daay waaw yow da doon takk ndox di fay ndekete essance nga tànk waaw tubaab bi bi mu tànkee ndox jëm ak sëñ Tuubaa njaareem mel ni ku yor potu ndox pour fay xalu sawara wi ndeke essence la tànk waaw gars yi dañ naan ndox day fay lakk am na ndox muy yokku lakk waaw loolu loolu la yàlla programmé tubaab bi daa jële suñ tubaab ca yéen jëm ak moom njaareem résidence surveillée ne ko amoo droit li des ci sa dund génn kër gi lu ëpp 200 mètres te du suma digal ñu départ rek sëñ tubaa ni e eh, ñi nee nañ dañ may yóbbu njaareem bu ñu xamoon li may amee njaareem duñ ma fa yóbbu ndax li ñuy bañ njaareem lay tàkke Cheikh Saliou fa ganee jamono guddi fukk ak ñeent guddig alxamis guddig bis bi gën ci bis yi clair de lune guddi gi muy gën a leer sëñ Saliou gën a jamonoom rek war na mandarga ñi am na lu mu war a doon guddi gi clair de lune di gën a leer ba noppi doon guddig àjjuma guddig bis bi gën ci bis yi fukk ak ñeent ca zul qaadat yi sëñ tubaab bind a saali maas ko fatha sëñ Ahmadou Lamine Diop laaj ko lu ci wund mu ni ko wooye leen ko noonu rek turam bi teg naa ko ku nette attanu ko ma tudde ko ko si Mamadou Lamine Diop ci la waaye xaside googu mu wax ab xaalanaa bi fadlihi saaliha parce que daal laaj sëñ Tuubaa mu ne ko woowee leen ko noonu rek bi mu noppee ci sëñ Abib Mbàkke imam moomu njaareem googu la dellusiwaat ku yàggat njaareem la kër sëñ mu dem yàgg na fa di jàng xam-xam bi mu amee 19 nag la tàmbalee sañ ci daara xoola pas-pas boobu ak njàmbaar googu sanc fi mu toll ba tey coow lee fi nekk rek waaye sanc du ay caaxaan fekk gaa yi dëkk nga dëkk ci seen wet neex na waaye sanc ba ñu ba wettaliku du ay caaxaan 19 ans suñ taaliw kam tàmbalee sanc fu mu sanc ba mu sax ba mu sax ba dund mu dem feneen sanc moo tax ngay dégg fu ne daara ñi bi ngeel got lagan ñaaru tayba foo xalaat rek bi mu demee bay sëñ Tuubaa waxaguma la woon sax fi mu jaar ak Cheikh Abdou Lahad Cheikh Abdou Lahad bi muy sëñ Touba xam nga koo xam ne yéen ñaar yéen a baa basin miin su fekkoon dangay def nit nawle kooku danga koy def nawle waaye sëñ Saaliw sëñ tubaa la doon xool gisul woon sëñ Abdou sëñ Touba la doon gis ci moom jox na ko ba jox ko lu mat milliard te boo milliard yombul sëñ Saliou bu masaan a bay ba jaay ko bay yóbbul sëñ Abdou xaalis bi moom du dem mais ay saako lay doon ñu teg ko ci oto dugg ak moom ba biir kër sëñ Abdou ay saako laa la wax ñu teg ko ci oto dugg moom ba biir kër sëñ Abdou Lahad wàcce ko te du bàyyi këram 1000 francs yu def yu mat dépasse bu joxe haddiyam ci borom Touba mbooleem li mu jaay ci mu te mu nekk mbayam da koy yóbbaale mas naa joxe ay saako sëñ Abdou Lahad bi ñu yegsee ndaw yi sëñ Saliou bi ñu yegsee mu ni leen dugal leen ko ci biir te ngeen wàññal ma ko ñu wàcce saako yi di wàññi suba ba takkusaan ñu génn ni ko nangam la sëñ Blanc ni waaw sàlla xamoon naa ko waaye dama leen ci doon jël seede sama digg ak borom Touba li Saliou def ñooña bi ñu dikkee ci ginnaaw takkusaan nuyu sëñ Saliou ne xaw ngeen faa yàgg de ñu ko waaw sëñ Blanc dañu doon wàññiloo liñ fa yóbbu woon waaw wax ngeen dëkk baax waaye ñëw leen wuti lu nu taal ci kër gi xëy joxe lu mat milliard ngoon jot nga ne nañu wut luñ taal ci sama kër mooy li may bàyyi duma ko lekk sëñ Tuubaa ko moom waaw ku leble loolu nag moo tax jamonoy sëñ Saliou la milliard xewee nag ku lebal borom tubaa sëñ Saliou li mu lebal borom Tuubaa mënutoon a ñàkk ci jamonoom ay milliards am ci yoonu murit sëñ Abdou Lahad bi mu waxee fii bu yàggul rek la loolu yàggul bi sëñ Abdou Lahad waxee ni dafa bëgg deux milliards ministre des finances Sénégal moo wax ni est-ce que laaj ngeen sëriñ bi ndax xam na luy milliard bi muy bi muy bi muy yokk Touba si bi muy yokk jumaa ji te wax te def budget bi deux milliards ministre de finances bu Sénégal jamonoy Abdou Diouf la ministre des finances Sénégal moo wax ni est-ce que sëriñ bi wax ngeen ko lan mooy milliard am ku ni bëreet yóbbul sëñ Blaat 500 millions ni ko dama ko bëgg a mottali mu ko déet bàyyil taalibe barkeelu bi ñu waxee ministre des finances boobu ni ko li sëñ bi laajoon mat na daa jommi te loolu yàggul kon milliards yombu fi woon waaye sëñ Saliou 11 milliards 400 millions la génn teg ci table ji ñibbi àjjana bàyyi fi 19 milliards xaalisu sëñ Touba. 19 milliards la sëñ Moustapha Saliou def ci ay kees jox ko Alaaji Baara wane ginnaaw. te joxuñ ko kayit te binduñ décharge loolu kër sëñ Touba rek la xew moom ma dégg nañ maam déet 19 milliards la seex seex Moustapha Saliou sëñ seex jox ko ndigal sëñ Moustapha Saliou yóbbul ko alaaji Baara te bindaluñ ko décharge waaye 200 mille sax dañuy bind décharge la xew kër sëñ Touba kër sëñ Touba rek la xew li xew kër sëñ Touba kër sëñ tubaa rek la xew parce que su fekkoon sëñ tubaa nit la alaaji baara magi sëñ Moustapha saaliw la waaye sëñ Moustapha Saliou gisul alaaji baara magam moo ngi gis sañ tubaa mi toog ci jamono su fekkoon sëñ tubaa nit la sëñ Cheikh Saliou mi joxe 19 milliards ñu koy yóbbul ki fi nekkal borom tubaa moom kooku fi nekkal borom tubaa magam rek la seen ñaari waajur a bokk bàyyi te bu doon ci xaalis bi kenn du ko foo ko def Cheikh Mbacke ndax xamuñ ñaata la fi sëñ Saliou bàyyi. mu dajale 19 milliards jox ko sëñ Moustapha moom sax demul lu toll ni 19 milliards sénégalais yu bëgg puukare yi ah sénégalais ak ni mu bëggee puukare yow sooy jébalee lu toll ni 19 milliards yaay jiitu gaa yi topp la waaye mu war koo jox ki fi nekkal borom Tuubaa moom sëñ seexum sëñ saaliw woo sëñ Moustapha ni ko jëlal yóbbul alaaji baara toog fa mu toog moom sëñ Moustapha yóbbu ko kenn jox ko décharge te ba mu fa jógee léegi nga xam fu loo lay war a jaar ndax moom borom tubaa alali borom Touba la jox na ko borom Touba noppi na ci loolu kër sëñ Touba rek la xew amul moroomam ji ci yu sew sewaan yooyu yëg danga ko ciy gis moo tax faw ñuy wax amul moroom ah. fii 100 millions rek dafay jàppanteloo ay ponkal yu ne ci diine lañu ne xam ngeen li ma wax bis bu ne ngeen gis yàkk juñ tëj wala jumaa juñ tëj di ci problème xaalis bis mu ne ngeen gis ko dem justice ndax lan xaalis te xaalis ba bu ñu waxee lim doon du doon dara yow sa way jur bàyyi 19 milliards kenn xamul ñaata la bàyyi nga jël lépp dem yóbbu fee te amul juste fu ñu la justifier ni andi nga fi 19 milliards yow loolu kër Sëñ Tuubaa rek la xew nag ci lislaam bi feneen fu mu doonoon ñu bind kayit ak programme fu mu war a dem boo fi jógee yow alaaji dinañ ñu wax fan la nga dugal lii waaye bi ñu ko ko joxee lañ ci noppi ñoom alaaji baara di liggéey véhiculé ko la ko sëñ tubaa sant alaaji baara moom liggéeyam yéen ñëpp xam ngeen ko gis ngeen ko alaaji baara ni mu def kanamu jumaa ji rek maanaam li wër jumaa ji xaram bi ni mu ko def rek doy na te jamono ju doom bi sëñ tubaa nekkul woon bi fi sëñ Saliou di jóge kenn imaginé wul lu fi war a xew waaye sëñ tubaa moom la programme am dul échoué ku am générosité comme alaaji baara rek bi fi sëñ Saliou di jóge moom la fi sëñ bi doon mën a teg mu mu mu recensé waat ñëpp indiwaat leen réconcilier yoon wi mais sëñ Saliou bi mu fi jóge pression yi nekkoon ci bopp yi ku amul générosité bu fi toogoon rek beneen problème waaye sëñ Tuubaa fekk na programme na waa joo xam ne wërloo na ko àdduna bi ba mu dégg làng yëpp xam na lan war a doxale ci àdduna mu indi ko fi fi saa si wax nañ ni bi sëñ Muntaxaa noppee ci sëñ Saliou la alaaji baara daal di taxaw daal ne ah ñi ko moom jeex nañ de ñi ko bokk fi des di nga nga di nga façon gérer bi ñi ko moom jeex nañ ñi ko moom dem nañ ñi ko bokk fi des lu bokk nag faaw nu koy waxtaane wala rek loolu rek la alaaj baara indi teg wax nañ fi saa si la sëñ Muntaxa jébbalu ci moom daa wax baat bi rek sëñ Muntaxa jébbalu ci moom moo tax kii fi nekk yàlla na fi yàgg nag parce que addunaam yëpp da ko toppee sëñ Muntaxa wax naa ko ci benn émission ci télévision bi ci benn weeru koor man leen sëñ Muntaxa ci la tàmbalee xelam bi te xelam bi dakkul dakkul ba ci bàyyi Sidi Muxtaar kooku nag bu jiitee ñu war a xam ne xam na yoon wi ndax moom toppe rek la mas a def te mas yàq ayu kenn nag barki seexul xaddim sëñ saaliw nag sëñ Muntaxa daa amoon ci moom ci sëñ saaliw bi mu doonee fii borom jamono àdduna bépp d'accord ni ki gën ci kaw suuf si Tuubaa Mbàkke la dëkk la waxoon Seex Muntaxa ni ko sama ruugi sa ruugee koy wett sama ruugi sa ruugi lay wettalikoo ci kaw suuf si ku ne xam ne ni mooy borom jamono am na parole yoo xam ne ku dul borom jamono doo ko wax ku dul yàlla mi sàkk jaam ñi du ma nangu mu ëpp ma yërmande ci ñoom ku dul borom jamono ñemee wax loolu ku yàlla sàkk nga jàppe ko ni sa doom loolu amul de mbaax yeggul foofu faw yàlla dénk la ruuhi jaam ñëpp nga mel ni yaa jur ñëpp bu la yàlla dénkul ruuhi jaam ñëpp sa xol mënta toll noonu sëñ Tuubaa bi muy wax zimaamu wara asri la dallaahi fi di poids wu wara asri la dalahi fi yadi motax mu saña wax yalla niko irham jami'al wara fofu mu tollon wax lolu ba fa seigne saliw tollo la wax ni kudul yalla mi len sak duma nangum mu upp ma yermane ci yeen jam ñi nak ko ci genné yow ya ci bokul motax ñu naan da yeremon ba yerim bahi may jam ñi la wax mom te ñepp yalla len bind yi nawak, yi doxak borom ñent tankak borom mil pat ak ku am ñaari tànk ñooyam ñépp yàllaa leen bind te ku ne ruu la dugal ci yow sëñ Saaliw borom ruu ku mën a doon dalaa yërëmoon ak foo amee ruu moo tax mu doon doxe ni muy doxe ci kaw suuf yàlla it di ko xamal loo xam ni ay toj leen fii ñu toj gis ñun gis ni dañ fee tabaxaale woon luy dund xam nga yooyu yeneen la moom di xool barab ba mu yàgg nga ni tojal fii ñu toj fekk dañu fay tabaxaale woon luy dund mu bañ mu loru ba mu tojlu yu sori yooyu gis-gis yooyu nga xam ni waaye nag boroom jamono àdduna bi comme bul lay mel ci moom mu ngi mel ni nga teg nen sama loxo bii bu nekk verre li ci biir yëpp dama koy gis borom jamono noonu la àdduna di mel ci moom kenn du faatu te yëgu ko amul kenn kuy gane àdduna te borom jamono yëgu ko boroom jamono mooy xalifatullaahi fil ardi sëñ Tuubaa moo wax ni sama kër lay juddoo ba àddunay tukki ajabanir khairu bakhin fihi qattaba kulli waraqa bima, li khada aqtaba aqtab moy plurielu khutbu ba aduna tukki borom jamono keur borom tuba lay dekk ak kan mu bu fekkon day am adjoint adjoint bi sama keur lay juddo askuruhu wa khadali abdala abdaliyat sa kër lañuy juddo kama kafanil harba wal jidala ab daal bu nekkee Sénégal ab taalibeem nekk Australie bu ko neexee bu melentaan di dox taali taalibe bi mu faxas ko te du ko yëg ab daal bu nekkee Sénégal nga nekk France ca géej di lab mu toog nii ci jotaay bi waxtaan bu ko neexee mu génne la géej ga ba noppi toog fi mu toog du yàq waxtaan bi bis bi sëñ Saaliw ganee jamono la sëñ Tuubaa wax ne ab daal la garat bi li ñëwaale kenn du ko doon te amoo 40 ans sëñ Saaliw bi mu feeñee la sëñ Tuubaa wax sëñ Xamsatu Jaxate na ngeen sant yàlla moom mi ci yéen garatu lab daal la fi ñëwaale kon fondation sop Serigne Saliou su doon dëggee ni rëbb sooyoo len fi ngeen dal baax na de fi ngeen dal baax na ma misal len fi ngeen dal moy ku xif juromi fan dugg ci keur gu toll ni mbar mi lepp di ndabi ñam waye yow juromi fan nga xif ñu ubi ñu ubi buntu bi rek ndab li nga jëk dal nga sukku ci mooy gën a neex ndab yëpp bala ngaa dem fee ndax dégg nga ma comprendre ngeen li ma bëgg a wax maam ku xiif juróomi fan dugg ci mbaar mi rek lépp di ndabi ñam waaye nga am ndab loo njëkk a ubbi loolaay gën a neex ci ndab yi loolu laa leen mën a misaale seen melokaan wi daa mel ni waxtaan wi ëpp na une de temps te man une de temps rek laay wax sëñ Omar jërë ngeen jëf ngeen baal ma xàq une yi kay ëpp na yaaram ëpp na de maa ngi xool montre bi écart laa tàmbali woon yaakaar naa te dem nañ vent nangam euh, xam nga waxtaane sëñ tubaa du doy naan buy dolli mar day yàgg rek waaye doo màndi bu fekkee li ngay naan day dolli sa mar te waxtaane sëñ Tuubaa naan buy dolli mar la moo tax buy am une heure doo ko yëg waxtaane borom Tuubaa naan guy dolli mar la léegi nag sëñ Abdou Khadir waxal li nga bëgg a wax boo ko waxee ba pare dinaa wax ci Cheikh Ibra Fall ñaari xisa ngeen baal ma ma dellu d'accord jërëjëf